moom lañ may falee mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi télévision Futur Média mbokk yi ànd ak ñun ñu leen di nuyu ñu ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce euh, Faram Facce nag ni ñu ko amalee àllarba bu jot dellu si nañu ci ak yéen euh, tey ñu am mbégte ci ni nga xam ne noonu lañ ko euh, waxe woon ak yéen fas yéene ànd ci débat débat boo xam nag dañ ciy ànd ak ñaari langue ci wàllu politique ñi ñi ngi fare ci ku gi ñi ci des fare ci nguur gi ci wàllu nguur gi nag ñi ngi ci am Pape Mahawa Diouf moom mi ngi bokk ci convergence bi nga xam ni euh, cadre APR yi ci la ñu nekk moom la ñu recevoir euh, tey monsieur Diouf ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Serigne bi Ndiaye. voilà ñu ànd ci itam ak Mayoro fay moom Mayoro fay mi ngi bokk ci comité directeur bu parti démocratique Sénégal bokk ci ñi amee itam wàllu communication bi monsieur Faye Mayoro ñu euh, maa ngi lay fay bu baax Pape ngañ di euh, nuyu également téléspectateur u TFM yëpp. voilà kon mbokk yi xam naa ni waxtaan bi dañ ciy daal di sóobu rek ak suñu gan yi euh, laaj bu njëkk bi dama koy jagleel monsieur Diouf maawa mu aju rek ci arrestation yi takkarnaase yi. maanaam nga dégg ni euh, kii di euh, Serigne Assane Mbacke jàpp nañ ko ca tubaa ak nañ ko jàppe nga dégg ki nga xam ni itam moom moo di maître Amadou Sall jàpp nañ ko fii ci Ndakaaru ak li ne moom la wax ba jàpp ko euh, ñu dégg ki nga xam ni itam moom mooy Cheikh Dieng nekk maire ci Jidda Caaray kaw ñu jàpp ko ak ni ñu ko jàppee ñu dégg ki nga xam ni mooy bàcc Seras naka noonu ak keneen koo xam ni ci PDS la bokk foofa ak ñeneen ñoo xam ni jàpp nañu leen pour yow lan la fi nguur gi jublu dafa ci jublu euh, maanaam ku jégi nappaate la pour pour pour xupp leen wala lan la jublu ci ci arrestation yooyu nga xam ne dafa tegaloo te tembare jërëjëf euh, Papa Ngagne ci laaj bi di la gërëm itam ci invitation bi tey di nuyu sa téléspectateurs yi lay seetaan biir Sénégal ak bitim réew bi nuyoo boobu weesoo euh, dama yaakaar ne Sénégal jéggi na jamono jañ doon yor ay nguur yu xuppaate ndax yoruñ askan yi ñuy xupp waaye it su xew-xew yi demee nii amee dañ ko war a mun a analyser xool ko ak responsabilité PDS ña fa nekk bëri nañ sëñ bi ma dendal tey jii di waxtaan ak moom tey muy Mayoro Faye kenn tudd ko kenn taasu ko moom am na liberté de mouvement lu ko neex mu def laaj bi kay mooy li tax ñu jàpp ñi ak li tax ñu jàpp ñële leneen lii tamit lu demee ni gouvernement ak état du Sénégal du président de la République ak ministre ak premier ministre rek dafa am une police responsable am des forces de l'ordre responsable loolu nag si amee ci réew dañuy càmbar li tax ñu téye leen lan lañ wax lan lañ def ba tax ñu téye ki ci demee ni euh, sëñ Assane Mbacké euh, moom dafa joteeg ab nit ku tudd Moustapha Cissé Lo ñëpp xam nañ ko mhm. donc loolu buñ ko boolee ci ay taxarnase politique ci ay contexte politique. mais jote boobu dafa yàggoon de yàgg na mais looloo tax ñu téye ko du leneen li ñu wax da li ñu wax bokk li ñëpp dégg nga dégg ko ma dégg ko loolu la looloo tax ñu woo ko donc mun ci mun bu buñ ci njott leneen lu dul loolu ñu ci wax rek. d'accord li ci des nag mooy euh, état bi ñu am état bu responsable la bu xam à chaque fois nan lay def ba euh, lépp lu jëm ci wàllu kaaraange askan wi ak seen alal mu mun ko sécuriser. loolu nag dañ ko war a rafetlu di continuer di ko rafetlu. d'accord Mayoro ndax signal bi yéen jot ngeen ko mu mel ni signal bu leen di wax nii euh, noppi leen réglé leen wala ñu def leen ci kaso bi ndax ndax ndax euh, bu dee message la ndax dégg dugg na ci seen nopp. Euh, Papa Ngagne maa ngi lay nuyu. Mhm. di dellu nuyu Pape Diouf. di nuyu également sénégalais ak sénégalaises yi ñuy suivre yëpp di wax ne fi ñu toll nii li tubaab di wax l'heure est ci foofu la ñu toll ndax. nguur bu fekkee ne dañ ko fal ngir mu faj soxla askan wi ca soxla askan wi mu bokk ci sécurité wu askan bi sérénité askan bi liberté wu askan bi ca mu dem ba mel ne léegi moom yi ko ci yitteel yim ci moom moom nguur maanaam dooleem baatam kàddoom doxalinam rek lay protéger protéger wul yeneen euh, citoyens yi nga xam ne ñoo ko joxoon seen baat euh, tiit jot na tiit jot na jaaxle jot na waaye itam wax jot na ndax ci benn semaine ñu sëkkatoo ci maa ngi waxtaan léegi ak euh, sama frère euh, Pape Diouf ndax yàgg nañu daje ci plateau ci dañuy waxtaan ci xel euh, ma naan ko ñetti at yi seen nguur li mu jéemal fexeel PDS ak ay ñoñam fukki at ak ñaar parti socialiste nekk ci opposition ñun yor nguur gi asaka yi loola sax ñun teguñu ko waa parti socialiste. Mhm. waaye ñun dañu jublu woon ci bu gaaw ci liggéey réew mi ndax boobu gisoon nañ ne farata yi bëri na ci askan wi mënutoon a xaar loolu moo ñu may tey dontele ñu tegg ñu fi teg fi président Macky Sall. ñu am bilan bu bu bu leer mais li xam nga signal bi li tax man la jot nañ ko. waaw jot nañ ko. pour xam ne da ngeen war a war a euh, war a waaf. xam déedéet ñun duñu waaf. Mhm. duñu kuy waaf déet mënuñu dëkk Sénégal di waaf. tey dañu jël président Macky Sall jiital ko ci réew mi. waaye jënduñu euh, euh, du du du roi. président de la république mu am nu muy doxe mu am ay àq yu ko yoon jox en tant que njiitu réew mi ñu war ko ko jox mu am itam ay àq yoo xam ne yi dañ ko delloo askan wi. ñun nag en tant que parti bu nekk ci opposition bi dafa am ay àq yoo xam ne bokk na ci liberté d'expression bokk na ci liberté euh, d'association liberté de mouvement liberté d'organisation de manifestation yooyu yëpp. dañ ñu ko jox. kon li waral coow li rek tey mooy euh, CREI yi. tey bu ñuy xool mën nañu résumer coow li nekk Sénégal lépp Papa Ngagne autour de la CREI kon mu mel ne euh, juste rek question bi moo nekkoon est-ce que jot ngeen signal bi ndax dafa mel ni loolu lay gën a nuróol. xam nga signal sa signal ñun trois ans ngeen ñuy jot signal si ñu jot signal. waaw tàmm nañu signal miin nañu signal. Mhm. mais terewul lañu yoon jox doon tale nag ñu ngi jàpp ñi bu ëllëgee ñu jàpp ñële fi may wax ak juróom-ñaari nit. ci benn ñetti fan jàpp nañ leen terewul li nga xam ne moom la ñu yoon jox muy ñu opposé wu lu ñu war a wax wax ka lu ñu war a def ko ci loolu lañ nekk. ba d'accord kon nañu jàpp ne jot nañu signal bi. waaw monsieur Diouf ci jàpp yooyu daf ci am nu askan bi jàngate ko bu njëkk dama ciy jël ñaar rek muy buu sëñ Assane Mbacké ak bu ki nga xam ne mooy maître Amadou Sall buu sëñ Assane Mbacké jàppin bi yaakaar naa ni jot nga feedback bi gis nga ni ñu bari ñaawlu nañ ko ni ñu ko jàppee ci dëkk bu tedd ba di Touba Mbacké rawatina ci rang bi nga xam ni fa la féete loolu dafay dikk rek ci kàddu yi nga xam ni président waxoon na ko que nii amul fii sëriñ amul dara ñëpp ay citoyen ordinaire lañu ndax loolu lay dëggal ni nga xam ni noonu lañ ko jàppee yóbbu ko tëj ko kaso beneen bi moom mooy euh, kaawu maître Amadou Sall parce que itam nañu xam ne acteur politique la opposant la ay propos la yëkkati ci meeting politique ñu indi waat loo xam ni ñëpp yaakaaroon nañ ni weesu nañ ko muy ni nga xam ni noonu lañ ko tegee daan ci article 80 ak euh, trouble ordre public ndax loolu du deltu ginnaaw itam euh, ci suñu démocratie réew ci ñaar yooyu ci ay tontu s'il vous plaît. waaw bi ci njëkk da nga laaj ndax euh, sëñ Assane Mbacké. Mhm. teex nañ ko jàppee Touba. Euh, bi ci njëkk mooy am na jàppin bu gën a ñaaw bu fi amoon démb. dem démb taxul ñuy wax tey. am na sax am na sax koo xam ne ñàkk na ca bakkanam. te doonoon ku tedd. Mhm. loolu ci nguuru Ablaye Wade la amoon. Mhm. Euh, li ci des mooy sëñ Assane Mbacké taxawul taxawaayu sëriñ moom ci boppam dafa ne day politique. Mhm. donc acteur politique la. donc bu ñu jaawatle këru nit ñu tedd ñi. ak ñi leen nguur gi téye. jox leen war ma ak ñi nga xam ne dañoo dugg ci langue politique. d'accord ñi dugg ci langue politique kon loolu dafay tekki ni action bi tam action politique la déedéet waxuma loolu. li ma bëgg a wax man. waaw mooy seen Assane Mbacké taxawul taxawaayu kilifa diine. Mhm. taxawul ne man sëriñ laa ci wàllu diine laay wax. dafa wàcc ci langue politique bi donc su ñuy wax jëmale ci moom bu ñu wax ci moom ci jëmm Mbacké gi ak jëmmu kilifa diine gi dara mënu ko dindi déet waxuñ ñu dindi ko waaye moom moom ci boppam. Mhm. wàcc ci langue politique wàccul ci langue politique. ne samay taalibe woteel leen ma. dafa wax ak askanu Sénégal yëpp. kon aussi su ñuy wax ak moom nañ wax ak ah, nañ ko jàppee rek. comme citoyen sénégalais. ok loolu loolu dafa am. li ci des nag mooy encore ni ma la ko waxee sànq rek mooy euh, li li li mu joteeg nguur ak yoon yoon yoon laay wax su may wax nguur ah mais Moustapha Cissé Lo lañ taal këram mu taxaw ci askan wi yëpp ñëpp di ko dégg ne maa ko def te su waxee la waxoon dinaa defaat lu ko raw. loolu su fekkee ni ñun ñëpp bëgg nañ bokk dëkk ci même réew mi ci jàmm ak dal mais loolu mënuñ ko bàyyi mu jàll man dey rafetlu naa li nga xam ne yoon woo na ko laaj ko waxuma ne moo def wala deful loolu yoon a ko mën a wax waaye ñu woo ko laaj ko dal na xel ci réew moo xam ne bëgg na doon réew moo xam ne réewu yoon lay doon ak réewu dëgg mhm. ndeem nag man sama jëmu bopp ñama yaakaar yëpp nga Tuuba mhm. ñama yaakaar yépp nga Touba mais terew lii ma wax mooy li ma gëm ci dëgg dëgg dëgg bi ci des El Hadj Amadou ak ñamu àndal mais Papa Ngagne la def wax nañ ko réew mi yépp ñu dégg ko Abdoulaye Wade dajale nit ñi obélisque wax la mu xalaat ne lii laa nar a def la muy def mu ngi ci El Hadj Amadou Sall bokk ci avocat Karim Wade yi bokk ci lieutenant Abdoulaye Wade yi taxaw ne su yoonu senegal bi nga xam ne 14 millions de sénégalais yépp a ko bokk daanee Karim Wade ci yoon Macky du fanaan palais wax jooju tegginewul ci koo xam ne responsable politique nga bu sénégalais yi di jox yaakaar. kooku tamit yoon la ca dëgg-dëgg. su fekkee ne suñuy charte réew permettre nañ ko ñu woo la laaj la loolu foo ko teg. ak naka nga ko gisee. loolu suñ ko mënatul am amul benn réew ci àddina bi. bu respectable ci wàllu démocratie ak li ñu naan état de droit. boo xam ne acteur politique dina taxaw ne décision de justice bii su amee man dina taal dëkk bi man dinaa fi indi saafaan boo xam ne président du fanaan palais wax jooju ñun ñëpp a ko war a ñaawlu. d'accord moo tax moo tax itam kon loolu ni itam régime bi xanaa dafa nekk ci régime bu xaw a ragal. parce que dinaa dëkk bi rek. est-ce que loolu taal na man gëw ma régime est-ce que loolu taal na man gëw régime li ma gëm. waaw ba bañ may woon leneen. Uh-huh. li ma gëm mooy am nañ justice. waaw am nañ ay juges yu responsable yoo xam ne fañ leen war a tàggate lañ leen war a lañ leen tàggatee suñuy juge ak suñuy magistrat ñu ñu respecté lañ ci Afrique. ak ci àddina bi pourtant terewul président de la république di wax naan nañu xam ne duñu leen bàyyi ñuy def lii ak lële. ko waxee moom en tant que. exécutif itam mi ngi ciy dugal kàddu. président de la république est le garant de toute la nation. askan wi yëpp moom lañ ko dénk. ci dal moom responsabilité am. mooy wax ak sénégalais yëpp xama leen ne réew mi képp ku fi bugg njënd ak di nga jënd ak ci dal nit ñi dinañ mën a nelaw ci jàmm te dëkk bi matt sax du fi tàkk loolu su ko mënatul wax d'accord te am ay acteurs politiques yu taxaw ne dinañ taal dëkk bi kon dina wàcc rôlam moo tax li mu wax moom la war a wax te képp kuy démocrate uh-huh. war nga ko rafet lu ma teg ci rek pap ma may la foofu moom ci boppam ma waxal boppam sëñ ma Mayoro ne wax ji yëpp crée yi la kon nag wax na wax ji wax ji mooy doomu Ablaye wadd bi ñu teg ci yoon te mu jëloon ay responsabilité ci réew mi uh-huh. man nag yaakaar naa ne fii mënuñ fi def un palais de justice. ñun du ñun du mayoroog man mii ñooy taxaw naan coupable na wala coupable moo def wala deful suñu réew am na ay charte di ci dox ñu respecté ko ci àddina bi ci wàllu démocratie ak institution. Mhm. kon nag suñu institution yi nañu leen wóolu. d'accord jamonoy procès nag am na. Mhm. suñu jegee jamonoy projet jéggi nañ ko jàll nañ ci leneen. d'accord loolu mooy responsabilité. alors Mahero. waaw fekk si ne la ci li nga wax mu xaw ko jaaxal sax mooy lépp créé la kon dafay wane ni seen action yëpp mu ngi wéeru ci liberté ki nga xam ne mooy Karim Wade mais itam li nga xam ni wax na ko ci maître Amadou Sall ndax du lu yanu maanaa itam parce que itam koo xam ne nekkoon na fi jëwriñ ñu dénk ko justice am na lu mu war a mën a xam ci justice am na ay kadd yoo xam ne bu demee ba di ko jàll baat président de la république di ko xup ci du fanaan palais mais est ay kaddu yu ëpp. yu tax mu mën a yi lii tey. Papa Ngagne euh, maanaam xam nga nañu dellu ci yan kàddu la waxoon ndax ni mu ko waxee demeewul noonu. Mhm. Euh, dafa ne maître El Hadj Amadou Sall dafa ne bu justice su Sénégal condamné Karim Wade waxul loolu dafa ne bu fekkee ne Macky Sall condamné na Karim du fanaan benn guddi ci pale loolu la wax bu fekkee ne Macky Sall condamné na. Karim Wade. loolu tax bëgg nga bëgg a joué ci. dafal ndànk. Ah, loolu la wax dafal ah, ndànk dama lay expliquer ah, d'accord mais bis bu ne nit ñi wax ko. Mm-hmm. man mën naa taxaw ne bu ñu kon condamné euh, Karim Wade François Hollande du fanaan ci palais Obama du fanaan ci palais. non bokkul ba tey mais est-ce que dan non defal naa. <laughs> Macky Sall du fanaan la ñu wax defal naa xam nga kay concerné wuñ ñu. waaw Pape Ngagne da nga may déglu tuuti <laughs> rek. si dama lay déglu daañu daañu daañu comprendre. li ma bëggoon souligner rek mooy. waxul ne justice su Sénégal parce que ñun CREI bu ñu koy wax dugaluñ ko ci justice Sénégal bi nga xam ne moom la nawloo ñun. jàpp nañ ne CREI bu indee coow ci chaque jour nga gis ñun nit yóbbu nit ñi ci tribunaux yi. ah les tribunaux ordinaire de droit commun ca déggoo ci ay coow xanaa ku ci ne da ngay wut avocat di layoo ba lu lay yoon may. Mhm. kon ça veut dire que CREI moo indi coow li parce que CREI àq ak yelleef yim nga xam ne moom la ñu xamoon ñu koy sàmmal doomu aadama sàmm ko ci tey ñu nekk nag ci 2015. Mhm. ci dëkk bu ñuy wax Sénégal. kon li mu waxal El Hadj Amadou Sall nekkul ne loolu la wax ci itam tëddul këram wax ko woowul tele yi ñu dab dar ko mu wax ko newul dafa damay damay dama dama koy déloger waxul loolu meeting la woon mhm. ñun ñëpp ñu jël fa kàddu ñu jox ko kàddu mu expliquer comment CREI yi nan la demee ba baaxul moo tax ñun ñu koy xeex mais je pense que ne yéen waroon ngeen tey taxaw wax sax ne président Macky Sall du moom mooy tëj Karim ñun loolu lañ doon xaar ci yéen mais bu fekkee ne da ngeen jàpp conditionnel boobu mu posé éventualité la ba mën na am ba ngeen njort ne moom mën na euh, euh, tax président Macky Sall du fanaan palais ba tax ngeen koy woo ci yéen ngeen woote liberté d'expression président Macky Sall jógee Sénégal dem ba France di fa marche pour liberté d'expression ci ay organe de presse yoo xam ne yii dañu wax lu ñaaw ci sunu yonent ñun ñeen ñun d'accord ñu ci marche bi mais mu am ay sénégal yu am liberté bu toll ne ne d'accord nañ ci yéen ñëpp ngeen ne d'accord nañ ci. ñu ne ko sa droit am la mais naka assumer mhm. yéen ngeen bëgg wax ne Sénégal du am kenn du ko tudd ca François Hollande chaque jour ñu tudd ko ca Obama chaque jour ñu tudd ko Yaya Jammeh mi nga xam ne sax kenn ñamewul dem dëkk dëkkam di fa sëqat chaque jour ñu tudd ko lan ngeen bëggati da ngeen bëgg nit ñi noppi kenn dootul wax ñëpp a tëdd loolu mën ngeen ko am ci seen ay alliés mais mën leen ko am ci seen opposition yàlla amul lu mu tële waaye am na lu mu dul mayee du leen may opposition boo xam ne bii du leen jàll baat beneen bi mooy affaire u euh, Serigne Assane Mbacké mhm. ni nga ko waxee demewul noonu Serigne Assane Mbacké dafa nekk président wu mouvement de soutien ak Karim Wade mu euh, dem dénoncer madame Faye Sall. Euh, madame fay Sall euh, CREI. di wax ne citoyen la mu dem bind ne nañ ko topp boobaak tey mayu leen ko jàmm di ko singli seen ndaw parti amul lu ñu ko waxul. Moustapha Cissé ci ay kàddoom ñun li ñu taataan dafa jàll baat. boo xam ne bi jàpp nañ ne tegginuwul. Mhm. mu jàblu ko ay sëriñ yoo xam ne yii ci famille la waa kër sëñ Fallou. sëñ Abdou xam nga loolu. Mhm. kooku magu bàyyu sëñ sëñ sëñ sëñ. effectivement sëñ sëñ mhm. kii la sëñ Assane Mbacké. coow loolu ñun ñëpp xam nga man mi wax ak yow murid laa. mais bu ñu sañoon coow loolu du am ci benn këru diine. mais am na réglé woon nañ ko sëriñ bi intervenir na ci Moussa Cissé Lo taalibe la nga bëgg nga bañ taalibe la xëy na seytaane dugg na ba réglé nañ problème mais lan moo indiwaat. ñu toog ba procès euh, verdigu affaire Karim bi jub si ñu jàppaat sëriñ Assane Mbacké Serigne Assane Mbacké xam nga lu mu wax dafa ne la daloon Moustapha Cissé Lo bu waxee la mu waxoon lu ko lu ko raw dana ko dal mais bi ñuy taal kër Moustapha Cissé Lo Serigne Assane mi ngi woon Castor xam nga kër kan seen allier yéen Ibrahima Sall seen allié yéen fa la ko fekk kon nan la ko mën a mën a bokk ci ñi taal kër woowu. d'accord donc moi je me dis mmh. Mmh. li ñu mën a jàpp ñun mooy képp ku ngeen njortu ne. xalaat ngeen ne kii xëy na mën na indi benn bruit wala benn kii rek daa ngeen ko wutal lay ba jàpp ko utiliser police mbaa gendarmerie utiliser prison pour tëye ko. Mhm. loolu nag taxul ñu démoraliser wu taxul aussi ñun ci parti bi. Mhm. ñu yoxat wala ñu am euh, tiitaange boo xam ne day tax lañ doon wax démb ak barki démb. wax d' accord Mayoro euh, posé na nag euh, acte question bu am solo Pape parce que xam ngi itam ki nga xam ne mooy président de la république dafa nekk aussi njiitu parti yaakaar naa ni opposition bi aussi ci politique war nañu mën a wax ak Macky Sall en tant que njiitu APR ci li ñu xalaat mu mu am aussi benn jeu boo xam ne def na ko ci mooy xam le ni la waxal Macky Sall du justice donc pourquoi mu attaqué ko justice jëlal quelque part. waaw Papa Ngagne euh, damay rafetlu sax li tax nga ne jeu. Mhm. sunu réew mi du fowukaay. Mhm. foyewuñ ko li ñuy def dañ koy def mu leer nañ ñoo xam li ñuy wax lan la. ñii non jeu la rek pap ñii. Mhm. li ñu yéene jeu de mots ñii li ñu yéene wax nañ ko. li ñu bëgg a def wax nañ ne ñu ngi koy def loolu man jot na ne du président de la république fii dafa am de des des des hommes yoo xam ne dañ leen a tàggat. ñu nekk ci police bi pour càmbar lépp li nga xam ne moo mën a déstabiliser dëkk bi dañuy def seen liggéey te li ñuy wax ñu ngi leen di dégg loolu ajuwul kenn nan leen def leen li yëg léeg dañ koy def loolu rek la léegi jeu de mots ay Macky Sall justice bi loolu moom liggéeyu avocat am la responsabilité am la li am ba des li mu wax sénégalais yi ci message leer na. Mhm. mooy su CREI condamné Karim Wade. waxul CREI président de la république. Macky Sall la wax CREI mooy jugé Karim Wade. waxul CREI de Macky Sall jugé wul Karim Wade. loolu kon kay yéen waru leen metti déglul rek. ma la dégloo voilà non non dama bëgg préciser rek. waaw tout à fait mais mais c'est bon. su ma waaw mais mais wax ji wax ji mooy. wax ji mooy kenn du leen may ci réew mi ngeen di déstabiliser dëkk bi te chasse aux sorcières bi ak paranoïa bi mooy toog yaakaar ne ku nekk ak lay bëgg a xaañ lenn kenn xaañu leen lenn ndax yow yaa ngi nii soo paree fii da ngay ñibbi sa kër kenn du la. kenn du la wax dara incha allahu rabbi. yàlla moo yor sama kaaraange waa dëgg la nga yàlla yor kaaraange ñëpp kenn du la def dara te kenn yéenewu la dara lu ñaaw ndax defoo dara lu ko jar. Mhm. mais képp ku taxaw dajale ay pënë ne da taal dëkk bi taal kër nit taxaw ne maa ko taal. te su defaatee lu mu defoon lu ko raw dal ko. wala nga taxaw ne ma rey ko sax dégg nga wala nga taxaw fii ci réew mi ma rey ko fii ci Sénégal. Mhm. nga taxaw ne fii suñu justice su daanee nit ne ko condamné naa la yow di nga fexe yow ba président du fanaan kër euh, palais bi loolu quand Sénégal dépassé na niveau boobu débat bi ci boppam waratul nekk ci lii. parce que Sénégal mérité na beneen débat bu dul débat bii Sénégal débat bi mu mérité mooy fan lañ toll ci économie. fan lañ toll ci investissement ban critique ngeen porté sérieusement yéen sur le plan Sénégal émergent mhm. lan ngeen gis ne c'est insuffisant ci li Macky Sall di jël comme initiative loolu mooy wax ji Karim jël na jëlul juge yi ko wax mais Papa ngañ ci liggéeyu CREI bi mënuma ci ñàkk a wax lii mhm. procès bi su amee lu ñu ci mën a jàngat mhm. mooy au moins am na lu toll ci ñetti entreprise yu mag ci réew mi yaa xam Dubai Port la yaa xam AHS yaa xam beneen boo xam ne ci wàllu mbéy mi la nekk bu mel ni su Suneor entreprise yooyu toll na noo xam ne ci réew mi ci importance et pourtant procès bi révélé na ne ñi doon les actionnaires majoritaires ñi nga xam ne ñoo am ñoo ëpp koom ci wàll ci pàcc suñ ko jëlee pàcc pàcc pàcc seen euh, koomu koomu koomu entreprise yooyu. Mm-hmm. xamuñ kan moo ko moom. xamuñu kan moom moom su Suneor xamuñu exactement kan moom moom Dubai Port World xamuñ AHS kan moo moom ak ñoom Dapor ak Fraport. loolu naka la mun a dale régime bu sérieux bu mel ni PDS ci li ñuy jàppoon. wala boog am na lu ñuy nëbb li ñuy yaakaar ñun mooy ñu wax ñu exactement xaalisu Sénégal boobu ci entreprise yi fan la féete. mun nañ jot nag su ñu gisee li nga xam ne moom la Cheikh Diallo wax te doon ànd ak Karim Wade régulièrement ci naka lañ tegee euh, groupe de presse boobu. ba nga xam ne Karim feeñu ci. CD Média CD Média Karim feeñu ci mais moo doon fay salaire moo doon recruter te moo joxe xaalis bi ko créé. loolu nag du Karim ci boppam. mbaa du ci loolu kon ngeen nar a basé pour mën a pour mën a jàpp ni la parce que loolu itam dafa doy waar déglul bi baax xam nga li traçabilité bu clair ak lu leer la ñuy xaar mais ay naka la ko ko defee déglul bu baax man du ma a wax ni man du ma juge xamuñ a li ma constaté waaw te mu garaaw li li ñu xamul ko moom ko loolu du man maa koy wax ki ko war a wax dina ko waxal boppam d'accord fa ñuy layoo am na ñu fa daje di layoo am ay avocat yu wax ñu jàkkaarloo ñoom dinañ wax la ñuy wax. mais man li garaaw déjà man ndax man du ma juge du ma avocat fekkee wu ma procès musuma ko seetaan mais li ma liir ci kayit yi te mu leer te nga xam ko ñëpp xam ko mooy xamuñ ci ko moom loolu dafa garaaw ndax koomu askan wi la pendant fukki at ak ñaar nga téye réew mi ci anam bu lëndëm boobu nga xam ne kenn mënul xam. koomu réew mi ci wàll woowu kan moo ko moom loolu dafa yéeme loolu kéemaan la. Mayoro ndax mën nga ko cee gindi. non dama koy gindi bu gaaw. kii dafay réer réer lu réerul Dubai Port World ku ko moom lu dul lee Dubai yot daaw Dubai pour World dañ ko jëloon def ko administration sous administration provisoire non. Mhm. jox ko Albouri Ndaw ñetti weer la fa nekk président Macky Sall daje ak ki moom Dubai Port World à Paris ñu siñe ba mu ñëw fi sax moom. ñu signé def benn communiqué conjoint wax ne que ni Dubai Port World Karim Wade moomu ko ci lañ ko dindi ci patrimoine wax ne aussi ñoom dañuy poursuivre seen ay euh, seen ay investissement muy benn parce que da ngeen ne woon presque 700 milliards mooy patrimoine am avant ngeen di daanu ci yoo xam ne 47 milliards yi ñu ngi cay tudd Singapour ca ba tey compte bi sénégalais yaa ngi xaar pour xam rek numéro compte bi benn mu wax waxu Sinéor premier ministre barki Demba Ndiaye mi ngi woon assemblée nationale Pam Ngagne mhm. kan la interpellé du Ali Jaber di dund personnel bi nga dégg ñuy wax ci presse bi di wax ne que ni du jaay une partie dafa di wax waxu redressement de la boîte di wax ne du sacrifier personne may ma rek ma àggale. Mhm. kon affaire euh, du ma jeexal émission bi ci affaire Sinéor féete na boor AHS Bibo Bourgi di dund mooy actionnaire à 90 pour cent Pape du Pouy am ci 10 pour cent. mu réclamé ko clamé ko këyit yi ay turam a ci ne boobu tey mu yéeg ak di wàcc feebar na ñu may ko mu dem France faju ji terewul mu dellu si mu nekk dama dellu si pour sama alal kenn du ko laal ngeen bëgg a ndayalee Karim Wade ça pose problème donc mois je me dis que Pape Ngagne heureusement loolu muy wax débat bu ñu dépassé la sénégalais yi xam nga fan lañ toll 117 milliards yu ñu nekk Karim moom mooy patrimoine am la ñuy laaj CREI yi ak ñiy waxal nguur gi nañu won sénégalais yi milliards yi ñu jiiñ Karim Wade parce que dama lay wax leen réquisitoire procureur bi passé ba tey waxul lan mooy dellu xam nga réquisitoire procureur mooy dafay wax ah finalement daal bi ñu xoolee li nga xam ne moom mooy euh, trac li ñu koy topp bi ñu lay topp sa patrimoine fukki junni la mbaa ñaar fukki junni la waxu ko xam nga lan la gën article 34 daan yi rek la wax daan yi maanaam fexe leen ba bu mu doon candidat ci ci élection présidentielle li di ñëw euh, ma dellu ci affaire u Serigne euh, Serigne Assane lu ndaw rek xam nga dafa wax sànq ne président Macky Sall ñii dañ ñun dañuy def jeu de mots ak euh, jeu politique. Mhm. di wax ne way bu ñu bëggee wax ci président Macky Sall ñu ngi woon ci meeting euh, politique ci lañu wax a nangam mais dafa wax ne Serigne Assane Mbacké chef religieux la mais politicien la. d'accord mais Macky Sall. Mhm. président la République waaye politicien la. pourquoi bu ñu jekkoo di wax lu ko neex. Mhm. nee na bu ñuy wax waxu PDS day ree loolu la wax ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi koy dégg ci moom wala ñu koy dégg ci ay nitam. mais pourquoi ñun à chaque fois. ñun bu ñu ko tontoo ñu ne ñu déet tontu leen président APR de président de la république ngeen tontu. Mhm. ensuite man dama jàpp ne président Macky Sall war na mën a waxante ci politique ak l' ancien ministre d' état garde des sceaux maître euh, El Hadji Amadou Sall parce que am na fu ñu jaarandoo am na lu ñu dundandoo ci ay nattangoo politique la ñu bu jegee ne kee yàlla may na ko maqaamu président de la république. Mhm. kon jàpp naa ne seen problème politique dañ ko waroon régler leneen lu dul article 80 ci article 80. mais président Ablaye Wade def na fi 12 ans mosuñ ci yóbbu nit kaso. ah bon déedéet ñu ne la jugé la condamné la kaso déedéet. ah kii tam jugé guñ ko ah. <laughs> mustaam <laughs> ca bii mooy. dem na ci article Bara Gaye dem na ci article 80. Mhm. Massaly dem na ci article 80 Samuel Sarr dem na ci article 80 maître El Hadj dem na ci article 80. d'accord <clears throat> donc tey bu fekkee ne fi ñuy wax ak yéen presque ñaar fukki responsable PDS ñu ngi ci kaso yi diggante kaso yeeg commissariat ba pare ñu ne nguur gi dese na sagoom man jàpp naa ne. d'accord euh, dañu perdre seen sérénité. waaw ca nguur kenn mënu ko yor ci àndoo ak dal. waaw delloo si leen dal. man nag bëggoon bëggoon bëggoon naa xam si euh, Pape lu tax euh, Abdoulaye Wade kenn wooluwu ko parce que li maître Amadou Sall wax wax na lu ko raw moom. wax na ko ci CREI wax na ko ci doomam wax na ko ci àtte bi loolu dama bëggoon nga wax ma pourquoi. wax ma man la ma ma jaaxal. dama nekk membre d'un parti. Mhm. di liggéey ci gouvernement bi. Mhm. du ma juge mhm. du ma commissaire du ma procureur mhm. ngeen bëgg ma laaj man mhm. lu tax jàpp ma Ablaye Wade ngeen bëgg ma laaj it ndax Karim Wade moom moom lii wala moomul lii man Karim lim moom ak lim moomul xaw ma ko ah. déedéet li ma wax mooy lan déedéet li ma sulli xam nga mooy lan waaw dama ne xamuñ ci ko moom waaw mooy wax ji. léegi xam nga boo nee xamuñu ki ko moom te ñi ngi ci atte nit. waaw ña ña cay atte. waaw seen liggéey la mais du sa liggéey. man leeral naa ñu ko moom Pape Ngagne. Mm-hmm. moom mi am fit bi na ko leeral man aw ma fit aw ma bi de xam-xam li wóor li wóor. <laughs> moo gën fit bi li wóor mooy li nga xam ne experts yi daje nañ di ci waxtaan. waaw ay avocat du domaine taxaw di ci waxtaan. Pape dañ leen bàyyi ñu yeggali mais mais mais njàngat bi. ba ma ci aussi yaa ngi def jeu de. non maa parce que boo ma mënee tontu ci maître Amadou Sall. ci propos yi mu yëkkati nga wax. Amadou Sall maa ci ñëw li mu wax ma wax ci maître Wade nga naan ma noonu. Amadou Sall ak Abdoulaye Wade yëpp dama ciy wax. waaw mais bo loolu loolu laa bëgg a dafa dafa baaxoon rek. ma leeral. acca que li may wax mooy man du juge. loolu xam nga nañ bàyyi juge yi ñu def seen liggéey parce que parce que li ci des parce que li ci des li kon day suñ buggee def fii tribunal day métti. du tribunal donc du juge. kon jeex na mënuñu wax ne kii moo moom ak moom ko waaw. Abdoulaye mhm. li tax ñu di ko jàpp ak duñ ko jàpp loolu man aw sañ-sañ boobu El Hadj Amadou Sall nag. téye nañ ko ba pare. Mhm. te jàppee ko offense chef de l' mhm. appel à l' mais fii Macky liñ koy yekk par par semaine ak par jour mais jéggi na dayoo El Hadj Amadou Sall la mu wax exactement waxuñ ko man du ma ko répété tegginewul. noonu la wax li mu wax exactement dafa dafa yéeme man du ko du ma tegginewul li mu wax Macky ci boppam la wax. non li mu wax nii dafa impuissant. yegguma ci mais li mu wax non non tegginewul ndax loolu la ndax loolu nga li ma wax daal mooy li ma wax daal mooy li mu wax. régime impuissant jëmale ko ci mais wax ñu tegginewul wax ju tegginewul ji moo ñu indi ci wàdd sax c'est que manque de sérénité bi <laughs> nekkul du côté de du pouvoir manque de sérénité bi côté bi mu nekk leer na ñi toog di tam nit ñi di dem ci mitig yi di leen saaga ak wax wax ju ñaaw ñoo ñoo manqué sérénité ñu leen koy tontu ah déedéet kenn tontu wu leen ah, ah, wax bu ñaaw bu ñu wax delloo nañ leen ko bu mu saf wax ju ñaaw wax ju ñaaw fu mhm. mun ti jógee mhm. baaxul tout à fait président de la république nag mhm. soo ko doonee ci réew mhm. am nga fa boo xam ne am na wax yoo xam ne war a génn sa gémmiñ mhm. soo fa doonee garde des sceaux am yoo xam ne war a génn sa gémmiñ fu mu munti jógee nag baaxul tout wax ji lii la naa président Wade dinañ ko téye duñ ko téye pagañ man loolu munoo ma ko laaj man. waaw mais non mais laaju mais ndax jaaxle woo ci. déedéet ndax jaaxle woo ci ñaari sénégalais yoo xam ne ci ñaari sénégalais laa wax de. ñaari sénégalais. muy maître Amadou Sall. maître Abdoulaye Wade. ñu wax ci ñaari sénégalais yooyu. ñoom ñu bokk ay propos même chose mën nañu wax kii wax ñu ba ko mu toog kii wax ñu yóbbu ko. waaw mën nañ ci interroger wu. mais loolu loolu loolu loolu l'autorité. waaw nga xam ne moo yor la sécurité de notre nation parce que question de sécurité lañ posé pour El Hadj Amadou Sall. Mhm. mais ñoom ils ont ils ont ils ont la sérénité et la souveraineté pour apprécier loolu. mais man mënu ma ko apprécier li ma apprécier mooy kàddu gu ñaaw gi ci Sénégal ci koo xam ne jiite nga réew mi jiite ko ba génn ci doon fi kilifa gu mag doon mag. di wax wax yu ñaaw yenn yi. wala nga doon fi garde soo yëkkati li nga yëkkati teg ko ci der yu Macky Sall doyu la nga ne dinaa jaxase réew mi ci yoon deful man li ma bëgg man. d'accord parce que man loolu laa bëgg. parce que wax ji wax ji wax ji wax ji ku nekk ak sa gis-gis. d'accord na APR. xëj na affaire soo jëloon ñu bëri wala parti socialiste. d'accord nii laay wax rek. d'accord mu su ku leen joxoon ñu condamné ñu condamné Karim Wade. voilà ñii aussi seen gis-gis. mooy mm-hmm. Karim jëlul mais am nañ yoon. d'accord yoon dina wax li am. voilà Mayoro. Mhm. ndax du da ngeen perte nag combat juridique bi bëgg a jël combat euh, mbedd mi. moo waral wax ju ñaaw ji ak pono yi ñuy dégg ak coow li. parce que bu ñu demee ba avocat yi gedd lu ñu lay noonu lañ ko gisee ñu dem ba ba ba ba gis ni peut-être amagul te leen argument wàdd saaga fële xaste fële maître Sall génn fële saaga fële xaste fële euh, Massaly la même chose ndax du kon da ngeen dem ba perte li nga xam ni mooy xeex bi ci wàllu yoon nag bëgg ko jël ci wàllu mbedd mi ak wax ju ñaaw. Euh, Pape Ngagne demeewul noonu ñi ngay wax ne Maître Sall dafa saaga Maître Sall saagawul kenn. <laughs> Massaly mi ngay wax itam saagawul kenn Massaly jóge na gendarmerie ñëw ne. Euh, que ni moom ay propos politique la teniroon à l'encontre de Aminata taal bi nga xam ne dafa saagoon Ablaye Wade mu tontu ko gendarmerie téye ko ay fan mu mer jeune la. lu mu ko tontu. non du ma ko waxaat ci plateau bi parce que waxuma li Aminata Tall wax Ablaye Wade. ma ne wax li ma parce que li Ablaye Wade. Euh, Aminata moo gën a ñaaw. doyen wax. non non du ma ko. yow doo wax loolu waaw na may ma àggale. Mhm. parce que sénégalais yi dégg nañu lan la Aminata Tall euh, wax président Ablaye Wade ci xam nañu it ñoom ñaar fan lañ jaar ak lu ko président Ablaye Wade defal. kon Massaly di ndaw lu toog ci wetu président Ablaye Wade dégg ko tontu ko tontu bu tolloog la mu wax. police gendarmerie jàpp ko man newuma gendarmerie moo tooñ wala tooñ parce dañ leen di sant procureur moo naan leen jàpp leen ko ñu def enquête naa nga mu génn bi mu génnee ne c'est une gendarmerie politique yi ne loolu waru ko woon wax ñu woowaat ko looloo ko bàyyi ci kaso bi boobu léegi nañ waxante dëgg nga wax loolu moo moo ko bàyyi ci kaso bi mat na weer léegi donc li muy wax ne euh, que ni euh, euh, Maître Sall itam dafa saaga Maître Sall saagawul dañ doon meeting politique ci tuddul justice parce que ñun li ñuy tuddee justice CREI bokk ci moo tax ñun échoué ñu échoué wu ñu de combat juridique bi non ñun jàpp nañ ne combat bi c'est politique même yi lañ fa doon def c'est un combat politique parce que CREI dañ ñun dañ ko dàq ci wàllu justice justice bi ñuy wax ne dafa war a moom boppam yi bokk ci ndax yi li fa xew xewul fenn pourquoi yi toutes les organisations des droits euh, de défense des droits de l'homme yu Sénégal dañ ko dàq xeex ko ñaawlu ko bi nga xam ne dafa moom boppam ci ay édito ci ay chronique xeex nañu nan la CREI di doxe ñi nga xam ne ñooy ay kilifa diine rafetlu wuñu nu CREI di doxe ka créé woon CREI muy le président Abdou Diouf nee na bi mu ko créé magistrature bi ak presse bi ci jamono yooyu bokk na ci ñi ko gën a sonal ba finalement daf ko teg ci suuf. Mm-hmm. ñi nga xam ne ay parti politique la ñu nekk ci réew mi nga xam ne am nañ fi baat yi nekk opposition ak li ëpp ci nekk pouvoir. nee na ñu CREI yi doxul. ba est-ce que romb ñu euh, non dama lay wax rek ba euh, ki nga xam ne moom mooy le ministre d'État dans dan Dansokho nee na buñ ci àttee Karim Wade ba pare dañ koy dañ koy euh, supprimer. Ah mais ça veut dire baaxul léegi nag ñu bëgg jël Karim Wade moom mu nekk l'agneau di sacrifice ñu àtte ko ci. tëj ko ci régler ci seen problème politique ak moom régler ci seen problème politique ak PDS ba pare door a wax nag ne léegi supprimer nañ ko door a wax nag léegi nañ dem ci ñun dañu jàpp ne CREI yi la. d'accord ci politique nag politique moo koy tontu waaw bu fekkee ne euh, CREI moo am président bi nga xam ne li mu fi def kenn mësu ko def génnee avocat dàq ci biti jàppanteek sa assesseur mu bëgg a poser question nga ne ko doo fi poser question la nga teroon avocat ba kooku démissionné dem procureur spécial ba toog audience ñu envoyé ko SMS ne dàq nañ la président Macky Sall defaat décret dàq ko defaat beneen décret indi fa ku bees ci CREI rek moo am bu ñu defaree seen euh, verdict ba pare dañ koy jël jox ko njiitu réew mi moom rek. même cour suprême euh, cour d'assises nga xam ne ñi rey nit ak yooyu lañ fa yóbbu. Mhm. amul loolu. mais bii le verdict est soumis au président la République. d'accord ba pare ngeen bëgg ne. Mhm. te dañ ko ressuscité ak décret président Macky Sall moo toog ne man damay euh, dekkal CREI bi fi amoon ci jamonoy Abdou Diouf ca tëdd lu mat fanweeri at. jël décret mhm. waaw taxawal ka di nommé ña fa ne. ku ci jaaratul yoon li ko ministre de la justice waxee procureur dañ ko fa jëlee parce que déggatul woon ndigal kon ki fi ne moo dégg ndigal ba pare nga ca président Macky Sall mooy fal. d' accord mook mook ministre am ñooy folli. Mm, d' accord Mayel ñu waxante dëgg. ñun mënuñu gëm ne xoolal bañu ma li mu wax de parce que avis euh, opinion am la mais ñun jàpp nañ ne CREI c' est politique ca doonul li àtte dëgg moo tax ñu taxaw nar ko xeex xeexu politique. d' reproche yi mu def ci CREI c' est important aussi. bu fekkee am nga ci man jàpp ne débat boo xam ne la dépassé na. te xam nga lu tax mu dépassé. 12 mhm. euh, ans yi fi Abdoulaye Wade nekk yëpp wane nañ fii les la loi de finance. mais dañu daan voté budget pour CREI Abdoulaye Wade da daan voté budget pour CREI. loolu prouvé ko ko Pape. loolu xanaa suba ma joxaat la kon. génne nañ ko fii loolu génne nañ ko fii génne nañ ko fii. on ngi naan dañ ko dekkal CREI musta dee Abdoulaye Wade li mu fi nekk yëpp CREI ngi fi CREI musu la dee ci réew pourquoi président jël décret pour di dama la déglu sëñ bi ah, waaw non non non sànq aussi yaa ngi dama la posé question pourquoi nag président cré yi mësta pour ko cré yi mësta dee dañ ko réactiver ah cest dañ ko bàyyi fii di ko jox budget muy lekk di fonctionner officiellement te deful te deful liggéeyam te deful liggéeyam donc li ñu def mooy fekk benn institution bu exister ñu fonctionner ko mais dama yaakaar ne débat bi yëpp weesu nañ ko li doon justice su Sénégal ak li doonul justice Sénégal du ku nekk yaay toog sa kër ne lii bokk na ci lii bokk ci man duma toog suma kër rek daal di ne cour suprême bokkul man samay institution justice bii laa tànn ak bii Sénégal dafa am ay institution yu dëgër sëriñ bi fay. yi bokk ci assemblée nationale mooy def les lois ñee di ko appliquer loolu su amuloon ci réew mi yi kon du mun a fonctionner fonctionner na nag te yaakaar naa ne Sénégal ay institution mhm. taxaw nañ. am nañ mat boo xam ne li ñu war a def dinañ ko def mooy wax li yoon te dinañ ko wax. Mhm. suñ ko waxee nag Sénégal yi tamit am na ay ay yu ay jumtukaay yu taxaw ak histoire bu dëgër boo xam ne la mu wax dinañ ko appliquer. Mhm. incha allahu rabbi. Mhm. loolu rek moo am solo li ci des damay métitlu partie bu mag bu day ni PDS ak at yi mu am ci opposition taxaw 12 ans de pouvoir te ba tey jii PDS jubluwul ci li tax mu ñàkk nguur gi PDS ay waxu saagante la toll léegi ak tam dëmb ak waxante wax ju ñaaw ak sànni xeer ak taal pënë képp amul benn projet. mënul sax critiquer objectivement ne li nguur gi di def ci wàllu économie doxul ndax mun nañ yokk lii li muy def ci wàllu éducation doxul. Mhm. ndax mun nañ def lii dara. d'accord tal pënë ak saagante ak waxante wax ju ñaaw. c'est dommage mais Mayoro dafa mel ni nag li mu wax jege na dëgg ah, parce que fu ngeen daje rek. wax ji mooy Karim mooy lii mooy loolu. Euh, amul argument yoo xam ne mi ngi koy xaar wax na ko léegi. mais euh, loolu est-ce que euh, itam doonul loo xam ni lu ngeen war a revoir la. waaw xam nga ñun. Euh, ñii bu ñu leen di critiquer dafay yomb xamal tax muy yomb du critique nag pour critiquer mais dañ leen def ay critique objective ndax déjà lépp loo xam ne ñoom taxaw nañu inauguré ko bi ñu fi toogee ak léegi ñun ñoo ko réaliser dama lay jox bateau yi ca Ziguinchor ñaari bato yi. Mhm. Karim moo ko signé boo seetee journal Le Soleil novembre 11 novembre. waaw loolu ñëpp gis nañ ko ci ñëpp gis nañ ko. Euh, Karim Wade moo ko signé ak les Coréens 24 milliards. Mhm. Euh, ñu ngi leen di gërëm ci li ngeen ñu ko réceptionnel ñun ñoo commandé woon. parce que suñu xalaat la woon leneen li mooy autorité yi nga fiy dégg ñu ne dañ koy àggale yëpp suñu ay projet la ca ba tey àggul dama lay jox rek quelques cas ñoom bu ñuy wax ne ñun dañ leen war a euh, critiquer ci wàllu économie ñoom seen plan bi gën a rëy mooy lan. PSE PSE. Mm-hmm. mais PSE li ñu ne réalisé gum nañ ko yëpp yëpp yëpp yëpp sauf centre bi ci Diamniadio ñu tuddee ko président Abdou Diouf suñu ay réalisation la te ñoom dañ koy dugal ci PSE nee nañu euh, autoroute Ila Touba Euh, Touba ci PSE bi la bokk xam nga dem nañ fi def euh, pose première pierre mais laaj ko ndax lancé nañu lee travaux na sénégalais yeewu ci entre pose première pierre ak lancer les travaux premier ministre demu fi euh, Fatick ci tali bu nga xam ne mhm. dañu ne woon dañuy lancer travaux yi enfin dañ koy defar mhm. ñu ne lan 18 jours xaw ma xaw ma 18 mois 18 mois la ñu wax ne que ne moom lay durer bopp mën naa juum nag parce que ay chiffres la yoo xam ne xëy na mën naa ci juum mais de toute façon joxe woon nañu dele premier ministre dem fa lan euh, poser première pierre ba tey lancé wuñu travaux yi tey rek boo dégloo ci xibaar yi dégg nga ko. Mhm. leneen li mooy université depuis combien de mois mës nga gis université boo xam ne ay professeur ñooy jël loi di ko lakk mësut am ci Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ci seen euh, pouvoir la amee. ndax lan ñàkk diisoo moment boo xam ne ñu ngi recevoir ay sportif di recevoir ay transhumants di recevoir ay euh, ay ay lutteurs di recevoir ay ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni dañuy xalaat ne électorat politique bi mën nañ ko renforcer les professeurs d'université bëgg audience mu ba tey rencontré wuñu le chef de l'État tey lañu doon bañ yëpp malgré retard bi ñu am nangu nañ ko parce que reculer ngi wax seen ministre de tutelle aussi lan. ñu ngi wax ak seen ministre de déedéet bu demee ba ancien ministre bi Cheikh Tidiane euh, kii Amath Tidiane Ba di wax ne ministre bi dafa war a waxtaan. Mhm. dem ba Kalidou Diallo bi nga xam ne nekkatul ak ñun di wax ne ministre bi dafa war a waxtaan man bi ma fiy nekk grève yi daawul demee nii. kon muy ci supérieur bi ak ci li nga xam ne moom mooy élémentaire ak mooy moyen secondaire élémentaire ak moyen secondaire tey nii ñuy wax ak yow grand cadre a ngi grève SAES mhm. a ngi grève ñëpp a ngi grève d'accord santé bi dégg naa leen ñi ngi menacé mhm. mais dañ leen non duñ fi toog xam nga loolu sénégalais yi ñu ngi koy euh, pam ngañ ñu ngi koy dund au jour le jour moo tax ñun jaraluñu ñu toog di leen ko wan parce que sénégalais yi ñu ngi koy dund au jour le jour beneen élément bi mujj mooy euh, li ñu diggoon sénégalais ci wàllu dund bi mhm. ba tey mhm. amul résultat d'accord c'est bon ah, donc ñun dañu jàpp ne ah, ñii jarul ñuy taxaw chaque jour di leen jéem a critiquer parce euh, que seen seen pro seen programme de gouvernement mooy trac d'accord waaw mais dañ leen di ñaan nag track bi bu jeexee comme que nee ngeen fii ak 5 jours daa ngeen joxe verdict ngeen woo sénégalais yi indi RTS mu taxaw ngeen wane milliards yi fan la dugg. d' accord euh, parce que Karim Wade aussi mën leen ko tëj ci noonu. kon ci lii ngeen leen doon xaar quand même argument yi mu indi nii ci. Euh, li mu mën a wax. wax na ko ci bateau yi wax na ko ci. Euh, ci doxalinu réew mi wax na ko ci lu bari rawatina ci njàng mi. président Macky ci lii ngeen ko doon ngeen leen di xaar président Macky Sall. Mhm. bi mu jëlee nguur bi ci njëkk mooy ni ñuy yore koom-koomu. Pape dama la bëgg fàttali benn point. koom mu dëkk bi ci. Ah, ma yoroo ma eggale non bu bëggul rek ma eggale. non non je vous en lay fàttali aussi mooy. Ah, ah. tey ci suba rek laa dégg président Macky Sall. Mhm. après quelques années mu wax ne day dellu ginnaaw ci visa. d'accord d'entrée yi c'est bon. mu mel ne loolu itam da ngeen ko jéem euh, tële. li mu njëkk a wax. Mhm. mooy nañ soppi ni ñuy yoree. Mhm. koom-koomu askan wi. bi ci tegu mooy nañ jël sunu priorité yóbbu ko ci ñi nga xam ne ñoo ne ci mbéy mi loolu nag mi ngi dox ndax am na ay initiative yu bari yu jël ci vallée bi notamment pour autosuffisance en riz te mi ngi progressé nga dem ci les domaines agricole communautaire ñu ngi leen di installer le désenclavement bi nga xam ne moom lañ amoon comme initiative dans le milieu rural mi ngi dox on est en train de progresser mais pour ñu bañ a dugg ci détails yi indicateur bi gën a précis bi nga xam ne ñëpp dinañ ci d' accord mooy taux de croissance bi ñu ci fekk ak fi ñu toll tey. Mhm. c' dire koom-koomu askan wi suñ ko doon joxee ci moyenne. waaw dañ tolloon ci deux point 4. Mhm. initiative yi ñu jël ak les mesures macroéconomiques yi ñu teg moo tax ñu dem 3 3 point 5 ba tey jii ñu ngi 4 point 6. Mhm. mooy maanaam su lool Ebola bi. xëj na sax fi mu toll nii ñu ngi cinq donc prévision yi ñu teg ci plan plan plan plan Sénégal émergent c' est en route. parce que li ñu bëgg mooy egg dans un premier temps à 7 ko fa ba mu a yegg à 2 points de croissance croissance bi nag ni ñuy def ba mu doon loo xam ne du doon chiffre bi ñuy dégg ci télé rek. ak rajo mais bu doon loo xam ne day nekk ci li ñuy woowee panier de la ménagère mooy ceeb gën a yomb mooy dañuy orienter les investissements dans le monde rural créer li ñuy wax économie rural mooy li nit ñi di uti ci taax yi. Mhm. ñu fekk ko fañ dëkk. ba duñ fa jógee ci béy di dundee loolu nag. Uh-huh. président la république looloo ko ñor. ci dëgg-dëgg te ci loolu la ne. Mhm. soo xoolee la mu def ci initiative ci riz la vallée les acteurs yi importés ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo yor ñoo yor mbéy mi ci boppam. Mhm. les mesures de facilitation yi ñu teg dina tax fii ak peu 2017 Sénégal dootul jéggaani ceeb bi d'ailleurs am na benn dynamique bu formidable bu installé wu ndax sénégalais yi ñi ngi dégg leen président Macky Sall di wax ceebu mbéy ñëpp a koy lekk léegi bu mbay ñi ngi koy jënd voilà la priorité du Sénégal. priorité Sénégal nekkul toog fii di par parloo. ak wax wax joo xam ne amalul njëriñ nit ñi. l'enseignement supérieur SAES signé na protocole nañ wax rek li nekk sooy changé di indi ay coppite ci doxalin day métti ñëpp duñu kontaan dina am ci ñu métti mais pour mu baax la. loolu Sénégal dañ ko ci reconnaître ba mu organiser sommet bu rëy sur l'enseignement supérieur ñi nga xam ne ñoo nekk ci njàngale mu kawe mi yëpp ci Afrique. daje fi reconnaître expertise u Macky Sall ak son gouvernement ci wàllu woowu. ñu jël ci ay mesures yu baax ndax xam-xam kat mooy doxal réew. ñu tàggatee xale yi tey suba dinañ mën a am ñu attan plan Sénégal émergent bi ñuy wax voilà en gros initiative yi nga xam ne du point de vue macroéconomique. ñu ngi koy jël. te dina baax état nag continuité la am na ñu doon joxe argument démb naan projet PDS yi. Mhm. ñun waa PS ñoo ko fi defoon. wax jooju tam bokkul ci nga xam ne jox cër. Mhm. Mhm. sénégalais yi la d'accord cest à suñ ko fi fekkee tamit. ñoom ñoo jugé. Mhm. que c'est bon. yeggali ko ba mot. d'accord mu doon njëriñu askan d'accord alors Mayoro ñu ubbi beneen beneen aju ci kàddu yi nga xam ni président Macky Sall wax na ko ci bitim réew eh, ci bi nga xamee ni daje na fa ak ay journalistes yu xam ne fii la ñu cosaanoo mais ñi ngi foofu ci bitim réew wax na fa nag lu jëm ci wàllu mandat bi nga xam ni wàññi na ko ci cinq ans mu xam ne ni ci bi ñu jëm ci mois de année 2016 la ko fas yéene. Euh, loolu euh, tam lu ngeen doon xaar la mu mu leer pour que ñu xam nag mandat bi fan lañ ci jëm ndax itam bokk na ci li nga xam ni dina gindi acteur politiques yi ndax loolu nga xam ni wax na ko lu ñu mën a lu mën a dal seen xel la ci wàllu mandat bi euh, nga xam ni amoon na yéene bu yàgg ci ci wàññi ko. Papa Ngagne xam nga man dama jàpp ne point boobu nga nga nga laal bokkoon na ci li ñuy tuddee ay promesses électorales. Mhm. c'est-à-dire. bi mu demee ba xëccoo bi tar mu bëgg ñu tànn ko bokk na ci euh, xalaat euh, maanaam décision yi mu promettre sénégalais yi ne da koy jël mooy ne bu ñu ko falee de moom dafay wàññi mandat kooku booba faloogul mu ne leen bu ngeen ma falee mandat bi sept ans la dama koy wàññi def ko juróomi at benn kon dañu jàpp ne loolu du ñun la ko seqal waa PDS parce que du ñun la doon waxal mais sénégalais yi la doon waxal bu ko tëniiree du ñu bett bu ko tëniirul du ñu bett pour ñun non ñun joxuñu ko yenn importance yi xamal tax dañu jàpp ne nit kàddu moom bu fekkee ne sañ na jàkkaarloowaat ak sénégalais yi doon wax ni que ni man maa leen waxoon ne damay wàññi sama mandat cinq ans toog ba mujj mu wut ay pexe donte nag day wut ay pexe yoo xam ne dafa am ñu koy légitimer mu jaar assemblée wala mu wut ñu ko campagnal pour un an bu fekkee dafay def référendum wala mu jékki-jékki euh, dem pousse jëm sept ans loolu yëpp moom moo koy assumer parce que engagement la boo xam ne euh, bi muy wut réew moom moo ko jëloon ca bi mu koy jël tàgguwuñu. mais engagement am solo la itam am solo parce que ci ci euh, ci modernité li tax mu am solo xam nga lu tax mu am solo. waaw man dama jàpp ne li tax mu am solo mooy. ci jamono ji xam ne ñi ngi yokk seen mandat ñi di ci bëgg rey seen bopp moom mu bëgg ko wàññi loolu xam naa da ko mm. apprécier aussi. Pape mhm. man dama jàpp ne bu fekkoon dafa am ba pare ca waxu ko woon du ko wax mais booba da doon wut ca ñi mu doon wutandool bari mu jàpp ne xëy na dafa war a def la différence ci la demoon signé ah les conclusions des assises alors que bokk ci woon d'accord ci woon. Mhm. ci la aussi bi fi gars yi toogee place de l'Obélisque yeneen candidats yi ne dañ fi jëlee Wade par force mu dem mhm. wër réew mi. mu ne ñee ña ngay xeex de mais man. Mhm. Ah, jox leen ma réew mi. dama bëgg liggéey réew mi. ba nit ñi am ci moom yaakaar quand même fal ko. fal bu rafet boo xam ne ñun parce que suñu famille libérale la bokkoon dañ ci kontaanoon. te ba tey liñ ci rëccu rek mooy yoon bi mu jaar mais rëccuwuñ liñ ko fal ñun maintenant. Euh, loolu mu digoon réew mi ba tax ñu tànn ko ci fukki nit ak ñeent. Mhm. jox ko réew mi ak yeneen ak yeneen di ay engagement yoo xam ne jëloon na ko jàpp naa ne euh, bu defee boobu daañu ne ah am na kon engagement bu mu jëloon muy ñaar benn bi mooy waxoon na ne waa PDS am ak ñoom règlement de compte boobu moom respecté na ko. Mhm. boobu engagement. Euh, beneen bi mooy mandaawam bu ko. respecté ñu xam ne. d'accord kon respecté na loo xam ne li waxoon na ko leneen li nag mooy aussi Pape am na lu ngeen fàtte lu am solo. xam nga bi mu wax waxu économie que nii oui euh, l' économie de façon macroéconomique euh, laa leen di wax fan la ñu kii ay croissance 4 mm-hmm. virgule nangam pour cent et xam nga présidente banque mondiale Barki dem Ndiaye ñëw na fii li mu wax ñun ñëpp dégg nañ ko. Mm-hmm. même PSE bi li mu ci wax ñun ñëpp dégg nañ ko ca dégguma kenn ku ko tontu xanaa dañ ko bëgg nëf nësal. jàpp na ne euh, c'est ambitieux mais jaaxal na ko fan la ñu jaar ba réaliser ko ñun nag xëy na mm-hmm. ñun dañu war a ñun sénégalais taxaw bu fekkee ne c'est un bon ñu taxaw pour ñu réaliser ko parce que loolu fierté sax war nañ ci dugal mais fi may waxee ak yow agriculteurs yi mbaykat yi seen gerte gi ba tey jënduñu ko. tout à fait fi may wax ak yow ceeb mbay bi muy wax ne 2017 dootuñu jëndi mbay. Mhm. barki démb laa dégg producteurs yi ñu ne ñoom ceeb ñi ngi yor ceeb ba tey ceeb boobu ah xamuñu kan moo koy jënd. d'accord mais kon na ko nguur gi jënd pour commencer. Mhm. na fay baykat yi jënd seen gerte euh, producteurs yi nekk ci vallée bi avant ñu yegg dañu war a lekk dañu war a naan dañu war a faj seen soxla dem leen ngeen jënd seen ceeb boobu. voilà voilà euh, am na exemple yu bari yu mu joxe euh, ci président de la république lu aju ci référendum bi nga xam ni fas na yéene matale ko ci kàddoom ni mu ko waxee woon waaye dafa am dafa dafa gestu ci rétroviseur bi wax ni ñi ngi fàttaliku loo xam ni waxoon na ko fi àndoon ko ak assises yi génn ca ñu jóge ci loolu moom loo xam ni àndoon na ci itam ak leader yi ci M23 ñu war a nekk fii place de l'indépendance mu génn ci am ñu ci sax mën a yokk scénario ak Amadou Mokhtar Mbaw lu mu tegoon ci loxoom mu yëkkati ko jox ko mu ne li ma ci arrangé laa ciy def loolu yëpp bu ñu ci fàttalikoo est-ce que dina dalal xelu nit ñi ci kàddu bi mu wax ci référendum ci mai 2016. ah Pape man loolu nga wax yëpp euh, gisuma ci dara lu na sa xel lu na saxal xel ci wàllu woowu amul benn engagement bu mu jël ak Acisar bu mu bu mu assumé wul dañ ko bëgg a jël loo loo xam ne waxu ko mais la mu wax dina ko def dafa ne woon réforme institution dina am gëmul régime parlementaire loolu mi ngi ci. CNRI bi da ko commandé mais mosul wax ne day jël lépp luñ ci def daal di ko appliqué déedéet li mu wax noonu la dina ko def loolu la waxoon te loolu lay def li ci des mooy réduction mandat bi man je pense que wax jooju moom ci boppam jeexal na wax ji. Mhm. nee na leen la ma wax dinaa ko def te it nag euh, jusqu'à présent moom wanaguñu fii loo xam ne mun na tax ñu xalaat ne mun na def loolu ñuy wax wax waxeet yaakaaruñ ne moom dina dugg ci loolu waneegu ko fi. Macky li ñu ko xamee jusqu'à présent mooy lu mu wax def ko te lu mu def wax ne lii lay def loolu moom moom lañ ko jàppee euh, et mesures yi muy jëli tamit bokk na ci li nga xam ne moom la gëm rek. Hmm. Euh, ceebu mbay mi waxuñ ne sotti na. dafa ne kay orientation politique am ak li nga xam ne moo ko yitteel dëgg ci wàll woowu la jublu ba tax na mu ne ceeb bi ñuy joxe léegi solidarité national bi ñuy joxee ci armée bi bi ñuy joxee ci état bi état bi lépp lu muy jënd léegi dootu ko jéggaane bitim PDS toog na fi 12 ans PS toog na fi 40 ans initiative boobu jëluñ ko lii dama yaakaar ne su dee bëgg nañ suñu réew ñun ñëpp ci war a jàpp sëñ bi fay. parce que jour bi ñu demee ba réew mi il faut encourager dynamique bii. parce que mhm. dynamique bi du dynamique ku partisane. moo tax ñun ñun ñun suñ fi toogee. <laughs> suñ fi toogee suñ fi toogee. mu ne 10 ans. Mhm. jeex na réew mi suñu dooma fii ne mais est-ce que dañuy continuer di jéggaani ceeb bitim réew dafa am question yoo xam ne suñ ciy wax. warul doon question par loo dañu war a wax exactement lan lañ mën a def ba mu jëm kanam su jëlee ceeb bépp bu état doon jënd ne léegi ci vallée bi laa koy jëndee kooku il faut l'encourager mm-hmm. su créer un plan d'autosuffisance en riz il faut critiquer le plan nañ critiquer plan bi mu teg ne yoon wi dafa gudd am na bu gën a gàtt nañ jël yoon bi gën a gàtt pour ñu gën fa gaaw a yegg nañ xool acteurs yi ñu leen di yokkal mais buñ ne deful dara wala lam doon def doxul. loolu waxu yàq la ceeb bi ci ci vallée bi la koy jëndee na fexe ba acteurs yi koy loolu loolu mooy mesure d' li nga wax ni ci opposition la war a jógee. d' accord mooy mesure d' accompagnement. <clears throat> loolu ci opposition la war a jógee maa ngi rafetlu laaj bi. Mm. loolu mooy nan la ñuy def ba nga xam ne euh, ñi nga xam ne ñooy jaay ak ñooy jënd nañ jënd ceeb bi mun ko écouler. et puis nan la ñuy def aussi ba am équilibre ak ñi importe mais loolu yëpp ñu ngi waxtaan malheureusement sunu problème aujourd'hui xam nga lan la amul opposition bu responsable. opposition bu irresponsable la ñu yàlla dagleel malheureusement ah aujourd'hui parce que mënuñu porter une critique boo xam ne day avancer loo mbir mi da kay jëmloo kanam malheureusement loolu lañu ñu yàlla jagleel aujourd'hui man nag maa ngi ñaan yàlla bu mu yàgg parce que démocratie itam dafa soxla. opposition bu responsable. bu doon une force de proposition sérieuse. mais pas une opposition incendiaire revancharde ak euh, un peu colérique boo xam ne chaque fois taal pneu ak masaleeg saaga ak yooyu rek.

man je dis l'opposition le parti d'opposition c'est pas c'est pas encore institutionnalisé su ñu nee APR ay irresponsable lañ amul problème. seen leader nag leaderu APR. loolu loolu loolu xam naa question bi nga évoqué. naanaa ñëwal rek Pape. non non damay ñëw. xam naa xam naa question bi nga évoqué. waaw le président de la République. est uh-huh. protégé par notre constitution. c'est aussi simple que ça maintenant. le président malgré tout waa déglu rek waa déglu rek malgré tout. waaw malgré tout président bët bu set ñu tudd ko te kenn du ko lal. kii ñi téye El Hadj Amadou Sall je répète appel à l'insurrection la ñu wax waxuñ offense à chef de l'État si mukk président moom ci boppam jëggal na ñëpp jëggal na ñëpp kii de li mu wax li mu tontu moom président de la république dafa ne réew mi kenn du ko taal waxul man kenn du ma saaga wala kenn déedéet waxul loolu. dafa ne réew mi kenn mënu ko déstabiliser njënd ak njaay dina fi am nit ñi dinañ mën a tëdd di yeewu ci jàmm. d'accord kenn du fi taal pneu. te kenn du déstabiliser dëkk bi. que loolu du moom rek sax c' est que institution Sénégal yi. d' accord ñoo am mat googu. <coughs> ba nga xam ne du ko jóg rek taal pën a jaxase réew mi. d' accord euh, Mayoro moom ci opposition bu irresponsable bi te xaarul woon loolu dafa bëggoon xaar opposition boo xam ni. vraiment dafay dafay dafay coopérer. non waaw pas pas pas coopérer xam nga force de proposition dafa am. Mhm. gis nga am na réew yoo xam ne. Papa Ngagne am réew yoo xam ne dafa am réew yoo xam ne. léegi léeg la le régime walla le gouvernement en place teg une proposition opposition bi liggéey sur une autre alternative ne voilà pourquoi ñun suñu proposition moo gën bi gouvernement bi di proposer mais yéen nekku leen ci loolu ci li ngeen nekk mooy un combat doom c'est-à-dire li ma jàpp man mooy ni ngeen ñàkkee élection yi 2012 ba léegi toogu leen def li tubaab bi di wax devoir daf la mayoon nag Pape <laughs> Alioune Mayoro euh, Pape Ngagne euh, euh, wax bi mu wax xaaruma ko ci moom pap parce que xamewuma ko woon loolu aussi mhm. wax boo xam ne xaw na doy waar mhm. mu nekk nii euh, ñun opposition bu irresponsable lañ mhm. du ma ko ko delloo même buy xaar ma delloo la ko du la ko delloo damay bàyyi mu jàll amul problème am na leneen lu ñu mën a gën a wax xam nga bu dee waxu mbay euh, mbay mi ci vallée bi pap euh, dafa laaj surface emblavée bi doon surface bu mën a dékku li ñuy wax autosuffisance alimentaire dafa laaj aussi li ñuy wax personne ressource yi ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi ñu tàggat leen tàggat boo xam ne day tax ci benn année ñu am ay saison yu bëri yoo xam ne dañuy bay dafa laaj également ñu am euh, euh, li ñuy bayee maanaam euh, jiw bu doy boo xam ne day nekk de qualité boo xam ne itam li muy def comme li ñu ciy am ci production day doon lu am maanaa leneen li mooy matériel agricole mais ñun dañu gisul ñoom ñu teg loolu yëpp moo tax ñun ñu ne loom seen projet boobu ñun dañu bokk ci ñi leen di ñaanal parce que du moom mooy lekk ceebu mbay di ma bàyyi wala man ma koy lekk di ko bàyyi. Mm-hmm. et puis ñay bay di ci am dara ay sénégalais lañu yoo xam ne yi ñii APR la ñu bokk ñii PDS la ñu bokk ñii feneen lañu PS la ñu bokk wala ñoo xam ne bokkuñ ci benn parti waaye ay sénégalais lañu. kon ñun amuñu benn problème ci mu réussir mais dañu gis ne yoon ñoom bi ñu jël communication bi moo ëpp que jëf bi sur le terrain et bëgguñu aussi ñuy wax sénégalais yi. mooy wane que communication bi moo ëpp jëf bi lan moo la koy prouver. xam nga fi may wax ak yow fi may wax ak may wax ak yi lan dama lay wax ne que ni. am na benn leader politique bu ma dul tudd turam bu mag boo xam ne dafa defoon mën naa tudd turam sax parce que ñoo bokk famille libérale muy le président Pape Diop. Barki Demba njaay def na tournée ci vallée bi daje ak ñu yor ceeb bi Oumar Sarr meeru Dagana ah tout le temps. ay euh, baykat yu mag dañ koy woo di ko wax seen ay jafe-jafe. Pape Diop na la seede. muy doon muy yoo xam ne yi. Mhm. mais Idrissa Seck wër na fi. def même constat mais loolu lépp bu ko doyul xoolal xam nga lan moo koy doy producteurs yi nga xam ne dañu génn ci télé yi waxuma rajo de ci télé yi di jàmbat ne seen ceeb bi nañ ko ñëw jënd mhm. ak baykat yi nga xam ne ñoom gerte la ñu yor amuñu kuñ ko jaay di xam nga ñoom lan lañu nee nañu état bi dafa bëgg bës leen bës leen bës leen bës leen ba nga xam ne ñoom amatuñu fexe ñu jënd ko ci prix boo xam ne bi baaxul ba pare génnee ko frontières yi donc ñoom bu ñu demee ba mu am boobu boobu ñaaw njot seen digganteeg état man dama jàpp ne. Mhm. ñun li ñu mën rek mooy dénoncer ko parce que sénégalais yi léegi dafa mel ne xaaratuñu opposition ñi ngi waxal seen bopp maintenant opposition nag lu mu wax rek ñu ne dafay opposé moo tax. d'accord maintenant beneen élément bi aussi Pape ngañ wax na ko sànq mooy lu jëm ci wàllu euh, loolu muy wax ne Macky Sall dafa war a euh, réduire mandat am ñun mu dem 2019 ak mu dem 2017 la ñu yemale. Ah. Sénégalais yi la waxante loon senegal yi ñi ngi koy xool di ko déglu ci ñi ëpp ci ñi koy déglu sax yéen seen ay alliés lañu. dégg naa léegi muy wax 40 ans au parti ñoom toog nañ ñetti at tudd ñu 40 ans au parti socialiste parce que temps yi commencé ngeen di roofoo ca ñoom nee nañu dañuy am candidat yéen seen problème mooy c'est problème politique xamul tax c'est un problème politique fexe ngeen ba seen ay alliés ñii napp ngeen leen ñii noppaloo ngeen leen. part socialiste rek a résisté ci seen allié yépp ñi tëdd nañ ñi ñi ngi xeex sax pour bañ a am candidat xeex ak di dàqante pour bañ am candidat ngeen ne président Macky Sall bu yàggul mu ne moom gisul opposition au Sénégal mais loolu ku say bët gumba dong yaa gisul opposition au Sénégal. Mhm. PDS ak ñi mu àndal opposition la bu wér ca xam ngeen ne mënu leen muusa kawaane ba ñun duñu am candidat ak lu mën a xew. Mhm. donc moi je me dis que yéen problème politique ngeen am. loolu moo tax talu leen jafe-jafe askan wi mais bu ñu eggee ci ay élection askan wi moo ñuy atte léegi nag wax bu ñaaw boobu nga wax ne que ni ñun dañu irresponsable ah man duma la ko delloo. d'accord loolu leer alors dafa ah, dafa am euh, ma ko teg. waaw irresponsabilité weesuwul toog tiim sa moromu gor di ko tam. wala nga di ko saaga. alors loolu mooy irresponsabilité. waaw Pape Pape s'il ma ma yéen li ngeen di def moo moo li ngeen di def moo yées loolu. maa ngi fekk bi xoolal liste bii ma yore ñëpp a ngi ci kaso bi. liste bi. nga waxal ma ko vite fait rek s'il vous plaît. Karim Wade. Mhm. Aïda Ndiong Abdou Aziz Diop Victor Diouf Bamba Ba Massaly Maître Amadou Sall docteur Cheikh Dieng Adja Koura Ka Ba. Euh, directeur de cabinet wu Amadou Diarra boo xam ne otoom dafa mbëkkanteeg benn oto force de l'ordre ñu ta jàpp ko Serigne Assane Mbacké. waaw mais loolu nag lan nga. Amina Ngiraan non attends. et cetera et cetera avant loolu Samuel Sarr tëj nañ ko tëj nañ Baara Gueye. tëj nañu euh, Farba Senghor Toussaint Manga Galotal Bokar Nia Pape Fall Serigne Dame Nia Djibril Sarr Amina Sakho. ce sunu allié yi tëj nañu Mamadou Diop Decroix tëj nañu Amadou Daaf tëj nañu Ousmane Faye ca pareeguñu d'accord kon ñoom xoolal juróom yi la ñuy utiliser merci presse la ñuy manipuler police préfet procureur prison Mayoro li mu wax nii loolu mooy mu levier de liste yi ngay yi ñu gérer seen gouvernement s'il vous plaît liste bi nga xam ne daf ko daf ko énuméré léegi est-ce que du jox dëgg li Abdoulaye Wade ni Macky Sall musul dem kaso moo tax ku jóg mu tëj la parce que wax na ko yaakaar naa ci. démb la xaw démb la ko wax ah. mu ne Macky dafa xamul kaso mosu fa dugg tax. Baara Gaye itam waxoon na ko. xam nga li jar a laaj. mooy ndax fukki nit ñi rek a nekk ci kaso bi. Mhm. ak ñeneen ña fa def ña fa des sàcc ginaar. Mhm. tëj leen ban parti politique moo am benn responsable bu nekk ci kaso ah, fi may wax ak bu dul PDS. Mayoro Mayoro may ko s'il vous plaît uh-huh. <laughs> amul ñoom. Mhm. ña fa def lañ def bañ tëj leen fa am na ñu def loo xam ne moo néew loolu ñu nga fa et pourtant parfois suñu justice du am sax efficacité juger leen le plus rapidement possible. et c'est dommage pour ñoom. et c'est dommage. Mm-hmm. donc taxaw fii yor sa liste. parce que yéen a ànd. ku def ñaawteef yoonu Sénégal mun na dal sa kaw. Mm-hmm. yow munoo taxaw fii ne benn membre APR newul ci kaso bi tey. Mhm. kenn mënu ko wax. xamuñu ko de ñun. Ah, yow yaa indi sa liste. su ma waroon indi jox ma ñaari tur. mais wax ji encore une fois man li nga wax moom solo. benn tur li nga wax moom solo. du encore une fois. ci li ma jàpp li ma jàpp moom solo mooy. critique bi nga def solo mooy critique bi nga def ci ceeb meeg mbéy mi. Mhm. par exemple sur la formation. d'accord c'est vrai mais propos Wade yi s'il vous plaît le fait que Macky Sall président de la République dafa xamul kaso mosul dem kaso moo tax ku jóg rek mu mu mu mu. waaw xam nga propos Wade aussi ci jamono ji ñu toll nii. Uh-huh. ak li mu fi jógee wax. Uh-huh. day doy man mënuma xam li muy wax la. d'accord xam nga xam nga ku toog wax sa xalaat. sur uh-huh. un jugement. de valeur. waaw lu la neex nga wax daal. d'accord aussi yomb na daal. c'est bon c'est kenn ku ne dama lay may benn une minute rek s'il vous plaît ci tàggoo parce que waxtu bi dàpp nañu euh, Mayoro lan ngay wax euh, ci ci ci mot de la fin. ci mot de la fin mooy. Mhm. abus d'autorité dafa war jeex. ok maître Amadou Sall dañ ko toppee dama la koy confirmer euh, offense au chef de l'État. Mhm. dañ ko toppee. parce que ñun avocat yi ko doon taxawu maa ñoom ñoo nekkoon ñoo wax ne loolu la ak atteinte à la de l'État. Mhm. donc loolu la leneen li mooy. réew kenn du ko gérer ci jaay doole doole yàlla rek ko am ca sa nawle mën nga ko rey de mën nga ko tëj mën nga ko sànq mën nga ko def lu ne waaye li ci boppam mënoo ko dindi. Mhm. ci entre sénégalais la. bu fekkee ne la ñu mën a wax bitim réew ak la ñuy may waa bitim réew barki Demba Ndiaye gis nga waa Y'en a marre ñun dañu d'accord ci gouvernement bi fekk leen fa ñu nekk. ñu soqali leen delloo si leen. tout à parce que àqu doomu aadama lañ doon xeexi. dëgg la bu fekkee ne nag dañuy nekk ci réewum jàmbur ñun ñuy def effort pour ñu jóge fa parce que dañ fa war a dem wax fa. àq doomu aadama ca fii ñu dëkk kenn mënu fi ŋaang kon ñu seetaat suñu bopp. d'accord nguur gi. jaay doole lay def ca jaay doole mayewul dara ca bu ñu demee ba ci kanam dana leer. voilà Pape jërëjëf Pape ngañ may rem di la remercier. ci invitation bi di remercier Cheikh Mayoro ci suñu waxtaan bi euh, di di di di wax rek ci gàttal. mooy que dëkk bi dëkk yoon la te yoon dina fi continuer di dox ne dëkk bi dañoo tëj gémmiñu nit ñi dina ma jaaxal ndax bët bu set suba rek dinañ tegaat ci deru président de la république suba rek lu rëy wax ju du loolu wax ji mooy kenn mënut yëngal réew mi ngir benn nit. yoon sunu yoonu dëkk te CREI yi ci la bokk ndax su doon ku nekk yaay tànn li bokk ci yoon ak li ci bokkul man ma toog suma kër ni cour suprême bokk ci police bokk ci gendarmerie laa bëgg mu wax CREI yi rek la ñu wax CREI ci la bokk te loolu yéen toog ngeen fi 12 ans dindiwu leen ko justice dafa am nag temps temps bi mooy temps wu procès suñ defee procès ba pare dañuy jàll ci leneen leneen li ñu war a jàll mooy ni ñuy soxalee koomu réew mi ni ñuy def ba ceeb yomb fi ni ñuy def ba jàng pare am liggéey yomb ci débat boobu lañ leen invité da ngeen bàyyi xastante bi. Mhm. ak dafante lu ñaaw li. loolu du suñu logique. jërëjëf merci beaucoup Pape euh, Mahawa Diouf merci beaucoup euh, itam ki nga xam ne mooy Mayoro Faye euh, Pape bokk ci APR ki nga xam ni mooy Mayoro itam bokk ci comité directeur bu parti démocratique Sénégal mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen jox daje incha allah àllarba bële di ñëw bu ci àllandee di gërëm la régie ak Vieux Diouf ak Pierre Da Silva di gërëm ki nga xam ni itam moom mooy Babacar Fall di wax ni émission bi mën ngeen ko suivre aussi ci intégralité maanaam am ci léppam euh, ci gfm point sn waaye itam mën ngeen ko suivre ci faram fàcceel a euh, ñi ngi leen di jaajëfal di leen jox daje incha allah alors boobu la di ñëw bu ci àllande jërë ngeen jëf. du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement bi. procédure la respecté dañ ma song ma dóor ay coups de sommation.